asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo bu ñu jëmale ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam lil muridin di ci di def nag ci ndigalul Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Fadil muy ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci Cheikh Mouhamadul Bachir mi mi jëwriñ ji ak cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye ñëw ci cheikh Abdul Fattah mi nga xam ne mooy yor liggéeyu màggal gi yor kàddu gi itam kër cheikh Mouhamadul Fadal di jëw jëwriñ ji cheikh Mouhamadul Bachir ak cheikh Abul Baraka ci liggéey bi ñu di ko yëkkati nag ci teewaayu sunu kilifa di cheikh Mouhamadul Xabaan moom cheikh Mouhamadul Fadal ñëw teewal fi sëriñ bi di sunu kilifa ci jataay bi. ñu teewee ci jataay boo xam ne nag dafa am solo muy bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa moo ko tuddal boppam moo ko màggal moo ko teddal moo ko teral di bis bu xewoon ci weer boo xam ne dafa bokk ci al ashhurul xorom bokk ci weer yi nga xam ne dañ koy warmaan di weer yépp tedd waaye dafa bokk ci weer yi nga xam ne ñoo gën a tedd amit xew-xew yu bare baree bari yu ci am waaye am ci boo xam ne nag moo tax ñuy daje tey muy bis boo xam ne ci la borom bi subhanahu wa taala terale woon soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam teraanga joo xam ne mësu koo defal benn yonent mësu koo defal kenn koo xam ne borom bi subhanahu wa bind na ko muy ràññaane ko moom sallallahu alayhi wa sallam jële ko masjidil haram yóbbu ko masjidul aqsa alladi baarak naa xawla lu taxoon lu niru yahu min ayatina innahu huwa samiul basir muy bis boo xam ne alquranul karim moo ko tudd wax ne yàlla moo ci jël soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam rañaane ko yóbbu ko jële ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa teral ko fa mu fekk fa ay yonent yoo xam ne kenn ku ci nekk sa wàccuwaay ak sa daraja ci borom bi subhanahu wa doy na sëkk daraja waaye mu ñëw nag indi ko ci seen kanam teralaat ko ci seen kanam sangalaat ko ci seen kanam yamu ca waaye mu yéegale ko yéege ko nag al miraaj loo xam ne borom bi mosu koo defal kenn moo yéege ko ca kawam ca ca ca ca péyam yu kawe ya ba mu yegg ca foo xam ne kenn mosu fa yegg te loolu lépp alquran la ki nga xam ne nag moo ko doon yónni muy jibril alayhi salaam dafa dem ba fa maqamam yam mu ne ko man fii laa mën a yam bu ma ko rombee damay seey ci leeri borom bi subhaanahu wa taala waaye borom bi nga xam ne ala kulli shay'in qadir moo man lu ne moo wut bindeef moo xam ne moo jëlaat sallallahu alayhi wa sallam wala lu ko nu mu ko soob daal moo ko na jëlee ba yóbbu ko foo xam ne kenn mosu faa yëg keroog sallallahu alayhi wa sallam jege na borom bi subhaanahu wa taala loo xam ne kenn mosu koo jege noonu loolu de alxuraan la ko wax xaaba xaw qaaba di aw adnaa bon muy foo xam ne kenn mës ta jege noonu borom bi subhaanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam jege na ko noonu mu jox ko fa loo xam ne itam mosu koo jox kenn loo xam ne kenn du ko xam waaye am na ci lu ñu xam nag mooy julli juróom fa aw awxa ila abdihi ma awxa mu doon euh, kon xew-xew boo xam ne dafa màgg ci lislaam jullit yëpp bokk jullit yëpp itam àndandoo di ko màggal ci réew yi jullit yëpp waaye nag ni ñu koy defee fii ci Sénégal mu doon loo xam ne xëy na ñun dañ cee gën a ràññu ko di bis boo xam ne itam cheikhuna alxadim radiallahu anhu da ko fokkoon bind ci ay téere yoo xam ne ci weeru bi la ko bind ay xasaayit yu bari yoo xam ne daf koo tënke sax yow mu rajabin am xasida goo xam ne itam dañ koy jàng waxtu wu ne muy mafatixul bishri goo xam ne ci weer wii la ko sëriñ bind am ci ay bayit yoo xam ne daf ko dugal ci biir bokkut ak ni mu doon woye xasida bi bis bi nga xamee ne xew-xew bu mag bi xew na muy cheikh Mouhamadul Fadil ga wàcc gane ci àddina sëriñ bi tënke bayit yooyee yow mu rajab muy yaa fadilan faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraxanil imlaaqu muy bayit yoo xam ne yu kéemaane la lépp itam dëppoo ak cheikh Mouhamadul Fadil weeru rajab ci la cheikhuna alxadim radiallahu anhu sos dëkk bu tedd bii di tuubal mahrusha weeru rajab ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisaate jibril alayhi salaam ci meloom ba dëgg-dëgg wax nañ ne bi mu ko njëkkee gis mooy bi alxuraan di wàcc ci moom boobu meloom la ñeme woon waaye booba ku ne xam na ne àndoon na ak ay diis diis lool ak ay métti ci sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi buy ñëw ci moom day ñëwee jëmm joo xam ne ci sallallahu alayhi wa sallam xam la bu ko indil wax yu nga xam ne loolu mooy tax mu xaw a gën a woyof waaye ñaareelu gis bi itam mooy su rajab bi nga xam ne ci la ko borom bi subhanahu wa woo woon mu dem di ko gane ji mu di ko teral teraanga yooyee mu jox ko ci sëriñ bu duun boobu yi nga xam ne mooy julli wax nañ ne ca njëlbeen ga juróom fukki julli la woon waaye sallallahu alayhi wa sallam bi mu dem ba àgg masjidul aqsa bay yéeg ca déelay boromam ya daf doon daf doon romb yonent yi alayhimu salaam yonent bu ne fa darajaam nekk te nekk ci asamaan su njëkk si wax nañ ne sunu maam aadam la mu yéeg di yéeg ba àgg ci asamaan su mujj jë wax nañ wax nañu ne yonent yàlla ibrahim moo fa nekkoon waaye diggante bi foofu ci yonent yi alayhi salaam koo xam ne foofa dara foofa la dara jàpp toll foofa la nekk mu jiite leen julli ku ci ne mu jaar ci wax la yoon wu mu doxi waaye bi mu wàññi ko mu jaaraat ci ñoom di leen wax sërite bu mu indaale ñu di ko ndokkeel di ko barkeel di ko màggal ci teraanga jooju mu am waaye bi mu leen waxee sërite bi ñu ne ko diis na boo dellee ca sa borom ci yërmandeem subhaanahu wa taala dana ko wàññi muy dellu di dellu ba wax ne ba mu des juróomi julli ne nañ wax ne nag ci màggam moom itam ak ci tedd nga am ak ci baaxam mu ne kat nag moom duutu mën a dellu ci borom subhaanahu wa taala kon day indi juróomi julli yooyu jox ko muy sëriñ boo xam ne moom lay indaaleel aw xeetam. loolu moo tax ñu wax ne ku ko julli def ko ni ko war a am defee da nga am juróom fukki julli Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci bis bi daf ko daan leeral di wax niñ ko dugalewaat ci biir naafile yi bala ngaa julli waxtu juróom naafile yi ngay yi nga xam ne moom ngay jiital. loolu ni mu ko daan leerale boo ko ma boolee day mat juróom fukki julli waaye ku def juróomi julli itam te sellal ko danga am yoolu juróom fukki julli mu doon itam bis boo xam ne day bisub alxuraanul karim ndax alxuraanul karim ku ne xam na ne ci sallallahu alayhi wa la wàcc waaye ci weer wi itam daf ci am cër bu rëy rëy kon sëriñ bi muy soññeewaale foofu soppe yi ak ñi nga xam ne dañoo baaxoo at mu jot bu ñu nee benn fanub rajab ñëw na ñu tàmbali di jàng alquranul karim di ko di ko di ko jox addiyeey cheikh Mouhamadul Fadil ak cheikhul Xadim ak sallallahu alayhi wa xam naa danaa wax nag loo xam ne sax moom euh, euh, ki ko def bëggul ma wax ko sama kilifa guy gu tedd gii ma toogal bi ñu toog ci jataay bi la tàmbali la tàmbali la tàmbali kaamil mm-hmm. léegi mi ñu noppi la ko jeexal. Mm-hmm. ma ne ko loolu ñu bari dañ koy dégg waaye mosuñu ko gis moom Cheikh Mahamadul Xaban moom Cheikh Mahamadul Fawal kon defe naa bu ñu dee waxtaane al isra wal miraaj di waxtaane xar baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di war baax di waxtaane tedd nga yi ñu sunu borom defal muy tere leenu Cheikh Mahamadul Fadil ah doomi Cheikh Mahamadul Fadil loolu xar baax la ñu bari dañ koy dégg waaye jàngu kaamil ci benn jataay nag moom sunu borom baaxee nañu ko tey fii ci jataay bii Cheikh Mahamadul Xaban def ko kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mahamadul Fadil di bis boo xam ne kon wax nañ ne mooy anniversaire u julli mooy anniversaire u julli waaye léegi bi ñuy wax ba yàlla dogal waxtu bi jot dañ ne sëriñ bi dafa joxe digal ne nañ dem joxe farata ji te loolu doon loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko digle inna salaata kaanat na almuminina kitaaban mawquta cheikhul xadim radiallahu anhu mi nga xam ne moo tax nu fiy dajee ndax mooy moo mooy lépp cheikh mahamadul fadil fonkoon julli ba fu ne julli fa ba fi mu nekk nii booy dox ci réew mi da ngay dox dox dox romb jenn jàkk ci wetu yoon wi ñu ne la fii de sëñ Fallou fi julli kon loola kon ku koy liggéeyal ba julli jot nga war a joxe farata yi sëriñ bi wax de it fépp fuñ may liggéeyalee bu waxtu jotee nañ ko joxe gis nañ ci ay misaal yu bari ñu ko doon liggéeyee ba bi jot waaye ba ko bi waxee dafa ne nañ dellu joxe farata yi ba lañ doon def ba waxtu bi duggee ñuy ñu yeesalaat loolee ndax fonk farata waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha bi itam yeesalaat wax ne joxe na ndigal bépp ndaje mu ñuy def muy ndajem lislaam rawate dañu koy defal Sëriñ Tuubaa bu waxtu julli jotee nañ bàyyi lépp dem joxe farata ji dellu si kon ndigal loolu lañ jëfe fii léegi feddalee ko ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha moom yi kon euh, dafay barab boo xam ne daal euh, bis boo xam ne itam ku koy waxtaane da nga waxtaane xar baax da nga waxtaane ngëm waaye da nga waxtaane nag fonk jëfe borom ndëgalu borom bi subhanahu wa taala seydina aboubacar ni siddiq radiallahu anhu li tax mu am dàkkentelam woow yi mooy gëm rek ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam riñaanee ba dellu si te loolu doon loo xam ne kenn mosu koo dégg waxuma nag di ko def koy waxtaanee ba mu yegsi ci moom daf ne leen bu fekkee ne sallallahu alayhi wa wa sallam ko wax de dëgg la sax dégg ko xisat ba mu jeex waaye dana bu dee moo ko wax rek dëgg la loolu bokk na ci li tax mu am tur woowu nga xam ne moom lañ ko tuddee as-siddiq muy weer woo xam ne nag démb ci guddi rek lañ tàmbali woon eh, eh, dundal ko ci daje ci kër Cheikh Mahamadul Fadal def ci ay waxtaan wu am solo waxtaane al isra wal mi'raj waxtaane itam Cheikh Mahamadul Fadal ren nag sët yi ak comité d'organisation bi tànn tomb boo xam ne mooy jàmm ku ne xam ne ne jàmm ci la lépp xaj hmm. jàmm ci la lépp nekk jàmm mooy lislaam ndax booy nuyoo sax sa mbokk na nga koy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu tollu nag ci jamono joo xam ne àddina bi soxla na ko du wax julli di waaye addina bi soxla na ko Cheikh Mahamadul Fadel doon koo xam ne daf ko doon dund di ko dundal daan ko jàngale daan ci yare ñuy def at mu jot ñu tànn benn tomb ci ak dundam waxtaane ko ren nag ñu tànn ñu tànn tomb boobu yi am na ku wax ne ku tudd Cheikh Mahamadul Fadel da nga tudd ay yërmande da nga tudd xar baax ndax mënta ñàkk ndax bis bi rek xar baax la ndax al isra wal miraaj mooy kawteef bi gën a màgg ci àddina waaye gëm ko moo tax seydina abubakar ni siddiq ak cëram bu màgg ba am turu as-siddiq kon bis bii day bisu xar baax waaye nag dafa bari ay tomb yoo xam ne des na ko mën a yaatal leeral ko ba nit ñi man cee jariñu kon ñu tànn loolu démb nag Cheikh Abul Baraka bi nga xam ne moom la ñu defal liggéey bi moo ubbi jataay bi wax ne itam insha allahu taala weer bi yëpp mboolem daay yi nga xam ne xam nañ ne bu weer bi teroo ñëpp dañuy def guddeeg bëccëg ñuy ñëw di siyaare si ren incha allahu taala ku ñëw da nga fekk sëriñ bi ci kër gi jox ko sa siyaar jox ko sa liggéey mu ñaanal kon loolu itam ñu ngi koy fàttali waale ci ndigalul Cheikh Abdoul Fatah bi nga xam ne moom la fi seriñ xabaat mi toogal mooy mu jot li nag ak cant akum nuyoo ñi nga xam ne ñoo waral ñoo ñoo ñoo ñoo jiite jataay bi tàmbalee ko ci sous-préfet ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy sous-préfet ak mboolem service yi nga xam ne teew nañ fi muy nuyoo boo xam ne nag daf koy teg ci loxoom kilifa barab bi di nga xam ne moo ñu fi dalal di Cheikh Abdou Ka nga xam ne itam taxawaayam ci dëkk bi rawatina taxawaayam ci màggal gi at mu jot mbooloo mi dañ koy rafetlu li mu li mu mën ak li mënu lépp mi ngi ci def kon ci ci loxoom la teg nuyoo boobu mu jottali ko gan yi nga xam ne ay ganam lay nga xam ne moom moo leen moo leen moo leen dalal ci turu Serigne Abdou Fatah mu tegal ñu ko ci loxo préfet ak sous préfet service yi waaye préfet jottali ñu ko ca ministre de l' intérieur am nuyoo aku cant mu lu ñu ko itam ba ca président de république mi nga xam ne moom ngeen fi teewal sëriñ baa ngi sant ci li nga xam ne weesu na muy at yi weesu bu ne xam ne ne matale moom yàlla rek moo ko def waaye nag yéen a ngi def seen kem kattan kon sëriñ baa ngi sant ci li weesu di ñaan li nga xam ne moom lañ fi jublu itam yéene yi nga xam ne am nañ ko fi ak yi nga xam ne waxtaane nañ ko fi ngir bëgg koo def sunu borom kàttan nañ nu ba ni nga xam ne am nañ yéene defe ko noonu nu defe ko noonu te yàlla may ñu teewe ko yu bari lool te ànd ak jàmm ak salaam te nga xam ne li nga xam ne moo ci di ay di ay di ay ngërëm yërmande di ci xéewal di ci barke sunu borom defal nu ko di xam ne ni itam rajo bi yaa di daan def moom itam incha allahu taala danañ ko tàmbali ñaari fan ci weer wi di yow bu buñ demee ba ci juróom-ñeenti fan ya moom itam danañ am danañ ko defaat kër sëñ Ousmane ngir rek fedd liwaat kóllëre ak yeesalaat diggante yu rafet yi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Mahamadul Fadil ak ñi nga xam ne moo leen jaboote woon ñi nga xam ne ñoo doonoon ay bokkam ñi nga xam ne ñoo doonoon jabootu lislaam gi yëpp rawatina kër yi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yi nga xam ne fu ci nekk am na fa cër boo xam ne kenn nattable wu ko bu ko defee bu ñu demee ba ci fukki fan ak juróom-benn itam ñu dem ca kër Serigne kër Serigne Ousmane Bousso kër Serigne euh, Thierno Diaw ak kër Serigne euh, njabootu Serigne Ibrahima Ndiaye gépp ñu ànd def fa jare jataay yooyu ren itam bis bu mag bi conférence bu mag bu set yi ñu ngi ko tuddee Serigne Massamba Diop Sam nga xam ne moom itam ku ne ku nekk xam na taxawaayam ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye doomam ju tedd ja ma euh, Massamba Diop ku ne xam na moom itam diggam ak Cheikh Mouhamadul Fadil ba am na ci leeru Cheikh Mouhamadul Fadil koo xam ne ma Massamba Diop la ko duppee kon loolu diggante bu mag la boo xam ne moom la comité d'organisation bi ak njaboot bi ci digalul kilifa yi digalul Cheikh Abdoul Baraka kilifteefug Cheikh Mouhamadul Bachir waaye ci ndigalul Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne moo yor liggéey bi jàpp ne nañ ko doxale noonu di ñaan ñu teew ko at yu bari lool te ànd ak jàmm ak salaam ci barkeb Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ci barkeb Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom bàyyi ko fi te may ko lool ak Cheikh Abul Baraka ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadul Khadim ak mboolem njabootu lislaam yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi